sëti maam Masamba Caam yi amal nañ ndaje mu yaatu moo xamante ni ñu ko amalee ci xabroom bi nekkee ci Mbàkke Jolof ginnaaw waxtaanu yaatu woo xam ne amal nañ ko fa ci lañ décider ne def nañ Mourchid Ahmed Iyane Thiam muy xalifa waa kër maam Masamba Caam mooy que ne bés ni tey jël nañ décision boo xam ne bii waa kër maam Masamba Caam yi fal sunu baay sunu najaay suñu maam suñu lépp muy sëriñ Mourchid Ahmed Iyane Thiam muy xalifa Maam Mas Samba Thiam lépp loo xam ne lii bëgg na ko wala xalaat na ko wala junj na ko bu ko joxañee incha allahu ñun sa diyeeg doom yi dana dagg loolu. def giñ ko def xalifa nekk na lool Mourchid Ahmed Iyane Thiam rafetlu na ko lool waaye am yéene taxawal ci bërëb bi ay projet yaato yaatu. bu ngeen dajaloo fal ma xalifa maam Masamba Thiam ah kon de aw sas lu aw sas wu rëy la rek waaye danaa ko jéem a bay bu ci yàlla àndee wala boog noo ngi koy ñaan borom bi ne danañ fi def jàkk danañ fi def itam kër goo xam ne kër mag moom la noonu lañ koy gan gu fi ñëw man fee ne bu baax a baax ak daara loolu koy mooy jiite ak tabax fi daara. bërëb bi nag ñëw fi xaw a jafe lool ak yenn jumtukaay yoo xam ne manqué na fii tax na ba ci yenn kilifa yi ñaan nañ nguur gi mu jàppale leen ci. kër gi daal soo ñu xam yoon ñu xam fonkaan ku ñëw bëgg dem tuur ndox tuur dem fa comme bëgg suuf bëgg suuf la ndox loolu ñu ñaan comme ay yëpp nañ ko ñaan mu ñëw nañ ko ñaan yëpp nag kii bu tooyee doon xalifa yàlla dana ci def itam dana bi nag kilifa yu bëree bëri teewe woon nañ ko bokk na ci délégation boo xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bachir moo leen fi yebal te Serigne Mountakha moom Serigne Mamor Pakala jiite ko ànd kook Serigne Mbacké Abdourahmane ñu rafetlu taxawaayub Mourchid Ahmed Iyane Thiam. Euh, sëriñ baa ngi lay sant bu baax nag ci yëg gi ak yittewoo gi yittewoo turaasul ajdaad ndax it nag bu ñuy wax tey démb tax bu ñuy wax tey démb tax te démb nag mooy ñi tëdd fii ñoo fi tasaare diine ji tasaare fi xam-xam bi tasaare fi njub gi lu ñu néew néewi at xam nañ maam ma sàmm tam li mu tekki sëriñ Mbàkke Buso radiyallaahu anhu wax na ko ci benn bataaxel bu mu doon tontu Alxaaji Ibrahima Niass ci lu mu ko doon laaj ñan la maam Masamba Thiam jàngal mu ne ko fii ñu nekk day muy diggante Bawol ak Kajoor ak Njàmbur daara ji fi taxaw di tàkk Masamba ko taal mbaam moo taal ko ko taal loolu la Alxaaji Mbàkke bu si tontu woon Alxaaji Ibrahima Niass maam Masamba Thiam nag mi nga xam ne moom lañ denc ci barab bi mi ngi gane àddina ci atum 1670 génn àddina ci atum 1760 nekkoon boroom xam-xam boo xam ne kilifa yu bëree bëri fii ci Sénégal moo leen jàngal bokk na ci maam Maram Mbacke mi nga xam ne maam la ci Serigne Touba di maam ci Seydi Hadji Malick Sy